njàqaram gi bu dee dee rek mooy tax mu dañ dana roy ci ñim daloon ndax am na ñim daloon ñu dee kon moom bu dee ci dee la jëm mu roy ci ñooñ rek bu dee damay am njàqare ba rey ma man dumaa ko fi njëkkee am na ñu mos am njàqare ba mu rey la moom lay wane inimral xaysi nag imrul xaysi jaraa dawoon na ilaa madan jëm ci lefam kawe faataaqahu mu gàllankoor ko ximaamuhu ak deeyam doonal ma daa waris lef wa imrul xay si daan na wuti kawe waaye dee dox digganteem ak kawe googu mu doon wuti kon man dee dalee parce que amul lu ma bëggoon du maa fi njëkkee falastu bi aw xadi wéetu ci de te loo wéetul na war koo muñ imrul xay si waykat la woon buñ xamee way baayam ne dafa bañoon way ba mu nekkee di way nag baay ji dàq ko mu commencé di wëndeelu ci arab yi ànd band yi nekk ci àll bi di dogaale nit ñi ñëpp xamee ko loolu baayam moo doon buuru banu asad kon moom doomi buur la baay ji da dàq muy wëndeelu ci àll ba baay ji mos tooñ waa banu asad tooñ gu métti ba nu asal complot dañ koy ray dal di ray baaja imrul qais bam mu ne ray nañ bayam mu wax wax dina ne dayyaani sagiran wa hamalani siqala sa'ir kabiran ba may nekk ndaw de sank na ma dàq bo né ba nek mak mu hen ma cionay bëgg a fa bëgg koo faylu ndeysaan nankatu sàngara lool mooy imrul qais ci la wone al yawma khamrun waxa dana amrun tey moom sàngara la waaye suba am mbir la de suba xeex la ndeysaan al yawma qixaafun waxa dan xiqaafun tey naan si poti sàngara yi la yax yu naan defar di ci def sàngara di ko naanee mooy xixaaf waaye suba moom dëbbante ci ay xeej la loolu nekk misaal léegi dégg su ko defee imrul xaysi daal di wut mbooloo ci waa Bakr bun Waayil ak ñeneen ci band yi arab yi ndax xamantoon ak band yi jëmali banu asad yi rey baayam balaa imrul xays di egsi gisaani katu banu asad xamal leen gisaani na ba xamal leen ne imrul xays yaa ngi ñëw waa banu asad daal di dem gàddaay dëkk ba imrul xays ñëw fekk fa waa kinaanatu mu rey leen yaakaar ne waa banu asad la commencé naan yàlla saaraatul xumaami yéen ñiy fayekul bi am màggat na ko maa ngi gën ci laata yow buur bi ñun nekkuñ ne ñun nga war a fayu ci ñi nga war a fayu mooy banu asad te dem nañ ci la imrul xaysi bàyyi bàyyi nam leen rey nag way wayam wa ayaa lahfa hindin min unaasin hum kaanu shifaa falam yusaabu waqaahum jadduhum bi bani aliyin وبالأشقين ما كان العقاب وأفلتهن علباء جريدا ولو أدركنه سفر الوتاب mu ne woo naa njàqareb hind ci ay ñi nga xam ne ñoom ñoo doon sedd sama xol waaye jotuma leen waaw banu asad su ma leen sama xol sedd sama xol saafarawu waaye nag mbuguluma leen maa ngi mbugal banu alin bun masud mooy waa kinaanatu ñoom ñoo leen fegal mbugal moom mbugal mi nekk tàbbiwul ci ñi gën a texe xadis mooy waa banu asad fas wu rëy doq moo leen rawloo dégg nga waaye su ma leen jotoon danaa mm, féexal seen mbuus ga danaa tuur seen deret yi ba mu jeex muy rëccu daal su ko defee ñi tamit mu àndoon moom da àndoon ak di xeexi daal di mer ne ko yaa ngi ñëw ci indi ñoo xam ne ñu set lañ defuñ dara nga tooñ leen rey leen kon ni dañ lay ba yow da ngaa ñoo ñooñu loolu daf leen naqari rey ko defu dara ba mbooloo mi tàqalikoo nag ci la dem Yemen daje fa ak ñenn ci buuri Ximyar kam fa dajeeg mooy xarmal kooku daal daa daanaka fajalul ko ajoom waaw mu jugee fa dem ruum ndeysaan ba muy dem ruum ci la wax nag ne baka saahibi lama ra at darba duunahu wa ayqana anna laahiqaani bi qaysara fa qultu lahu laa tabki aynuka innama nuxaawilu mulkan aw namuuta fa nodara sama àndoor bi mu jooy gis na ñi ngay jéggi ñell ma war a daje qaysar ma ne bul jooy ñun nguur la ñu xuur wala dee am gant ndeke dee cay topp ba mu newee dugg ci qaysar ñaan ko ndimbal qaysar bëgg koo dimbale waaye imrul xees ku bëggoon jigéen la ba mu demee doomi buur ba nopp ko ndax imrul xees dafa rafetoon bëgg jigéen doomi buur ba fa far ko nopp muy ngorowante doomi buur ba di ñaan ndimbal di ngorowante moom la wax baytam bu mu naan samawtu ilayha baadama naama ahluha sumu wa xabaabil maai xaalan ala xaali maa ngi yëkkati ko dem ci ndaw si gannaaw ba nit ñi nelawee comme yëkkati ko fuur ndox ni mel rek noonu laa mel nànk-nànk ba yegg ci ndaw si ah benn waaye ci banu asad man ca mu ngi foofu ca buur ba xam na li imrul xays di def waa banu asad la war a rey te xam na ne imrul xays nam na doomi buur bi mu ngay mu ngay mu ngay ngorowanteeg moom waaye di am dem jaxase ko buur kooku tam maax la tudd ba ko jaxasee buur bi buur bi mer waaye nag wax ko dara boole ko soldaar yu bëri jox leen juróom benn téeméeri mbubu koŋ waaye def ci benn mbubb boo xam ne dañ koo tooke boo ko solee rek seen bi day daggati ko mu jox ko benn waaj ne ko boo demee niil ma imrul xays ne ko buur bi moo la jox yére bi daf koo sol ba pare ne la ko sol pour teral la balaa nga ko sol na duggal ci duus bi nga sangu boo génnee ñu solal la ko imrul dugg ci duus bi sangu ba set génn ñu solal ko yére lu ko defee yàpp yi commencé di wadd mu commencé ay yàppam di wadd ci la way way wa laqad tamaxa tammaaxu min bondi ardihi li yulbisani min daa'ihi ma talabbasa wa buddiltu qarxan daamiyan bacda sixatin fa yaalaka min nocma tabaddalat ab usa mu ne tammaa séeneen na jugee ci àll bu sori pour soril ma ci soral ma li nga xam ne moom moo ko yelloo woon dégg nga fexe daal ma dee ci laa mujj nag amee ay góom yu nàcc gannaaw bu ma wéree samay xewal yëpp mujj nekk ay njaxare dégg nga su ko defee ba mu feebaree noonu ñu yóbbu ko ci benn wetu doj ñu koy wax asib ci wetu bammel bo xamne ne nee ñen ci buri rumi yi ñoo fa tëdd mu laaj bammel bi ku fi tudd tëdd ñu xibar ko ne ko kenn ci buuri ruum yi la mu commencé wax ak ku tëdd ci bammel ba ne ko ajaratana inna al khutuba tanubu wa inni wa inni muqimun ma aqama asibu ajaratana inna ha huna wa kullu garibin lil garibi nasibu ndeysaan mu ne ko yow sama dekk ndor musibaay jamono yi dafay wutu wante démb yow la woon tey man la man nag nekk fii laa nar sax fekk doju asib mu ngi fii sax yow suma dëkkandoon ñun ñaar de dañoo tumuranke ci barab bi te ku tumuranke ku ne askan yaa ku tumuranke yéen a bokk askan ay xarit nga mu demee ba war a dee nag mu ne kam taanatin mus jira wa xutbatin mus an fira wa jëfnatin mu daasara matrukatin bi an qira na jam gu sampu ak xutba yu wëy dégg nga ak baagaan yuñ damm yuñ bàyyi an xera maanaam na jaloor yoo xam ni moom taxawee na ko ñu nar koo suul an xera moom nitu jaloore la daal na jam dafay xutba di teral gaañi tey mu ngi nii ñu nar koo suul an xera foofu la dee amul lim bëggoon ma su fekkee li ma bëggoon wut naa ko dee gàllankoor ma moroy si mu xëy nafsu abil jabri bakkanu abil jabri aljawaa njàqare xatta xawaahu ba mu làq ko alxat fu mu bokk ñi nga xam ne abu jabri bu amru ci waa kindi bokkoon turam ak dàkkantaram benn abu jabri dégg nga amoon na yitte ba mujj not foofu ci Yaman yàlla def ñu mujj ko génnee moom it ci Yaman coup d'état mu bëgg a jotaat nag nguuram ñëw ci Kisra ñu ne déedéet demul ci kenn ci buuru Yaman yi la dem ne ko abal ma ay soldaar ma dem ci ñi nga xam ne coup coup d'état lañ ma jël sama nguur su ma leen notee danaa jël ay nit sama nit jox la ko ñu dugg sa diin diine kusaan kisaane ko loo bëgg ma jox na ci aw nit ndax fukki junne nit yoo xam ne léeg-léeg ñu jam léeg-léeg ñu mooy wala ma jox la ñeenti junne yoo xam ne saa yu ñu jamee jam duñ mooy mukk ndax ñu man fett lañ mu ne ko jox ma ñeenti junne yoo xam ne dañuy fett di jam te duñ mooy moom a gënal fukki junni yoo xam ne léeg-léeg ñu jam léeg-léeg ñu mooy ah Kisra boole koog mbooloo moom ba ñëwee ba ci barab bu ñuy wax Kaasima kenn ci mbooloom Kisra yi ci waa ajami wax ñoom ànd ak ne waaye yéen fan ngeen jëm ànd ak Abu Jabr mi moom ay nitam la bëgg a xeex ak su xeex ak nitam ba pare jël ñi def ñi jaamam nañ ko tooke ñu daal ko tooke mu feebar foofu mënatul dem ba feebar bi yàggee mu dem ci benn docteur bu ñu wax Haris bun Kalda Asaqafi moo doon docteur arab yi mu faj ko dégg nga xam ko fajee ba mu wér abu jabru jox na ko euh, ay jaam may jox ko ay may kodd ko yére bokk na ci jaam yi ko joxoon su yëttu ci la Abu Jahl mit feebar bi dikkaat mu daal di dee ah ki nga xam ne moo jiitu woon mbooloo moomu bind Kisra ne ko Abu Jahl dee na Kisra ne leen kon tourné leen fekk ñoom ñoo ko rey waaye yëgut moom Kisra ne gars yi ñoo ko rey gannaaw gi la door a xam ne ndeke gars yi ñoo rey Abu Jahl mu ne wallaahi su ma xamoon loolu kon ma salab leen ngeen jugee kaasi ma ba ci dëkk yi diggante boobu yëpp si yaa leen salab eh, fayakul ko abu jabril moom it noonu la doon wutee teraanga mooy jotaan nguuram fu mujj dee ba bàjjanam di ko way wayam yooyu ñu ne maamu bu jigéen naan layta shi'ri wa qad sha'artu abal jabri bima qad laqita fi tarxaali أتمتت بك الركاب أبيت اللعن حتى حللت بالأقتال أشجاع فأنت أشجع من ليس هموس السراء بالأشبال أجواد فأنت أجود من سيل تداعى من مسبل هتالي أحليم فأنت أحلم من دنجا من دمت حسان ومن مشى في النعال أكريم فأنت أكرم من يمشي على الأرض بين عم وخالي ملك ماجد يقوم له الناس جميعا قيامهم للهلال أنت خير من عامر وابن وقاس وما جمعوا ليوم المحال أنت خير من ألف ألف من القوم إذا ما كبت وجوه رجال من يلن تكون مخم أبو الجبري لنا دجاجة تكمي gawar gi yóbbu nañ la ba nga wàcc ci noon yi bu dee dañuy wax jàmbaar yaa gën a jàmbaar gaynde googu nga xam ne ni dafay rañaan ci guddi gi di bàyyi gaynde yi bu dee tabe yaa gën a tabe yoon le goo xam na ni mu ngi dotteeku dégg nga di wàcc rek bu dee lewet yaa gën a lewet képp ku war fas ak kuy dox ak tànk bu dee tabe yaa gën a tabe kuy mën a dox ci kaw suuf dégg Mm, yaay buur boo xam ne bu tabe nga bu tedd nga boo jug boo boo ne tëll ni ñëpp dañuy jug comme ñuy jug di seen toweer yaa gën a amir ak ibnu waqaas yaa gën lépp lu nit ñi mën a dajale ngir wut pexe yaa gën junnee junnee nit su kanam yi njëkkee bu kanam yi góor yi njëkkee li junne di def yow kenn boo taxawee yaa ngi koy def ndeysaan kooku du mu jóne dee ba nit ñi di ko martial mu ne wabnul asaj ma ne bu ma naree kii rek ma roy si abu jabr wabnul asaj ibnul asaj alxayla kay buur saaqa màngoon na nafsu bakkanam ila rada jëm ci alkande hizaara ishmaatin ida ngir ragal ndokkuk nooni mooy abdurahman bun muhammad bun ashas dégg nga bun ashas bun qays ashas bun qays boobu abubakar mayoon na ko doomam si sëtam mi la bokk Abdurahmaan moomu si jamono Xajaaj ibnu Yuusuf la ko Xajaaj yebal ci Ratbiil mooy buuru Tirk pour mu xeex ak ak moom fekk Ratbiil daf doon mbugal jullit ñi nekk si gistaan sonal leen lool Xajaaj yebal Abdurahmaan bi te Xajaaj ku bañoon Abdurahmaan la daf daan wax ne man mosumaa gis Abdurahmaan lu may ne sama xel mi rey ko lay xalaat Xajaaj ku loon Shaabi bii nettali ne xajaaj eh, dafa mas a toog Abdurahman dugg ba ko xajaaj xoolee mu xool leen ni muy doxe wallaahi li ma bëggoon mooy dóor dox gi benn yoon mu dagg <laughs> noonu la ko bañee woon Abdurahman nag eh, moom it jàmbaar la woon dégg nga mu ne ba Abdurahman génnee Shaabi bii nee na mu ñëw wax ko li xajaaj wax waaye mu ne ko nag nëbb ko waaw su ko defee ci la Abdourahman moom it commencé bàyyi xel xam ne kii daf ko bëgg a xalak daf koo bañ mu génn dem ci xeex boobu yàlla ubbi ci loxoom ay barab yu bari ci réew yi rat biir yooyu rat biir buuram boobu buur boobu Abdourahman not na ko réew yu bari mu gañe ko foofu rat biir dem ba xam ne léegi pexe amatul mu ne Abdourahman léegi nañ nañ xéwanoo ñama reyoon ci jullit ñi maa ngi si jéggul léegi nañ fexe xéwanoo ah ah ni waaw léegi nañ xéwanoo moo bëgg a toog foofu at moo xam ne dafay dem wër barab yi ngay xam ne yàlla ubbi na ko ci loxoom bàyyi xeex bi tuuti dégg nga bind ko leetal na ko déedéet continuer da nga tàppel rek commencé ko ñaax ci xeex daal ah Abdourahman dajale aw nitam mm-hmm. ne leen Hajjaaj daf ñoo bëgg a rek bëgg rey moo tax mu sant ñu nañ bay xam nga sax ñun sax ñun léegi dañuy folle xajjaaj nekkutul suñu buur ci la fépp waaw Abdourahman ci la mujj fépp ak ñim ànd ak pour folli xajjaaj ñëw basara mbooloo mu bari nekk ci gannaawam ci waa basara tamit léeg-léeg ci borom xam-xam yi laa bëgg wax ñu bëri nekk ci gannaawam ay borom xam-xam lépp Saïd ibnu Jubayr mi ngay dégg ak Shaabi yi ñoom ñëpp mu ñu ànd ak Abdurahman ñu xeex xeex yu bëri digganteem ak xajjaaj dégg nga waaye xajjaaj mujj ko not ah moom mu daal di daw dem ci buur rat biir bi mu xéwanoo nag pour mu fat ko ndax amatul pexe moom Abdurahman ah bind buur boobu garante mbir yu bëri si kaw mu yónnee ko Abdurahman ci la ko buur bi xeew pour delloo ko xajjaaj hmm. Abdourahman boobu ñëwee ba ci yoon wi mu yëg ci ab teraas hmm. ba fexe ba jege buntu terrasse bi rek hmm. daal di wàccee boppam daanu xaru dee ab jurit nag di def loolu moom lay wax ne ibnu Ashij buur la xoon jàmbaar la waaye mujj na rey boppam ngir ragal noon yi ndokk ko muy ngir ragal tàbbiwaat ci man tamit su ma dee di kële ma roy ibnu Ashaj moom rek ndeysaan waxtara ma dogoon na al waddaa waa ji wax waddaa min duuni lati way si nga xam ne am malaaha mbébatoon na ko sayful ximaami jaaseeg dee al muntada bada bañ bocc waddaa mi mooy jusey matul abrash dafa amoon jàngoro baras arab yi ku amoon jàngoro baras dañ ko doon tuddee waddax waddax mooy lu leer rek bi daal waddax weex weex rek moom nag aw nitam tuddee ko waddaax pour màggal ko bañ ko def waddax fekk dafa amoon jàngoro baras rek dégg mooy jusey ma bun Malik noonu la tuddoon su ko defee moom it buur la woon da daan dajeeg buuri arab yi di xeex ak ñoom di leen not dem na barey waajuru zaba zaba bi nga xam ne moo ko nar a rey jël nguuram hmm? ah, su ko defee eh, bis ñëw zaba jigéen loon joo xam ni nee daawut wat karaw naqam te daawut taarlu ngir góor dafa fase woon sëy bañ notee baayam li des ci nguuri baayam moom la yoroon jiite ko moom saba bu ko defee gisee matu ne moom ne xam nga buur rek day bew ne dafay labat takk ko mun diisoog ay nitam yëpp ñoom ne ko waa loolu koy baax na takk ko nga jël nguuram ak sa nguur yëpp muy benn xasiir ne déedéet zaba bu bëggoon moom dana la dana sàkku loolu mm-hmm. waaye buur la comme que yaa ko sàkku rek wóorul mm-hmm. bañ toogee weer zaba bind benn leetar di gaaral boppam jusey na ko boo mu bëggee maa ngi nii mu laaj gaayam yi gaayam ni ko ah li nga doon bëggoon kay mu ñëwal na la mm-hmm. demal dajeeg moom xasir na ko kooku jigéen la joo xam ne musut bëgg góor xam naa li nga wax la jot moo tax mu bind la leetar bul dem bañal ah moom mooy xasiir rek ndax topp bànneexu bakkaar xasiir ne maa yu taamu li xasiirin amran xasiir daal kenn du ko topp ci mbir mu mujj nekk misaal ci koo xam ne la ngay wax mooy dëgg te kenn faalewu ko waaye Jusayma amoon na fas wu ñu wax asa fas wu gaaw xasiir na ko boo demee nit ñi dajeeg yow di la wër xamal la ñii dañ laa bëgg a rey gaawal war asir rek nga daw bu ñëwee nag nuyu la ñoom ñëpp dégagé wu bara xamal ne da ngay da ngay seetu su na sa xel dal ah ba mu waxee loolu mu ne ko waaw ñu daal di dem ba dajeeg nu mu tuddati zaba ak ay nitam nitu sa bàyyi di ko wër pour xalak ko xasir na ko waral asa mu euh, ragal war moom mënatut war ndax jaxasoo na daal di wala asa rek moom daal di dem mu xam moom gisee mu ne dañ koo a rey ba xasir waree asa mu ne ma dal ma ma jarat bii asa kii asa di daw moom ne le kooku réerul de maanaam mu ne dëkk dëgg-dëgg xasir la moo waxoon mooy dëkk loolu nekk misaal ci ku lay wax faale woo ko bu mujj gis léegi nag ci la ko zabaaw daal di yóbbu ba ci barabam wuññil ko sawukaayam xam nga ñàkkoon jom mm-hmm. ne ko ah am nga seet de mm-hmm. mu ne ko man ko yow ma seet ab kàccoor bu war kat mm-hmm. laa am dégg nga ñu xasante foofu eh, ci la ko mujj daal di rey ba mu koy daggati deret ji di toq ñenn ne bu leen sànq deretu buur bi bu leen ko bàyyi mu war suuf jusey mu ne dau dau damman dayyaahu ahluhu deret la joo xam ni ay nitam ñoo ko njëkk sànq kon bareen ko parce que nit ñi ñoo ko yebal ci loolu su ko defee ci la ko zabaaray moom jusey ma jusey ma la mu bëggoon mooy takk ndaw si fu mujj dee manit bu ma dee ma roy ko xasiir nag àndoor bu mat àndoor la mu ñëw ci amru mm. doomi mbokkam jusey ma la jusey ma mbokkam mu jigéen moo jur amru mu ne ko suñu yaay rey nañ ko te xam nga ne rey ñu ko rey musiba la fexeel fayakul ko daf suñu jaay ku baax la mu ne ko nan laay def xas na damay dagg sama bakkan bi ak sama noppi nga dóor ma ma nga bàyyi ma dem ci zaba danaa xam nan laay def mu dagg bakkanam njoof noppam daal di dem ci zaba yore melokaan bu yéeme ne ko gis nga amru moo ma def lii ne ma man maa tax ni ñëw ci yow zabaane lu ñu la fayee bon pourtant digg naa yow laaya biir nga ko sax <laughs> war naa xam ne kon waxul dëgg de waaye nag li ko def jox nopp bakkan bi loolu dafay yaakaar ni nit du ko def boppam ci la ko fat ndax ñoom ku noonu seen noonu rek ñu bëgg la fat ko nekk ak moom jox ko alal muy commerce mm-hmm. bu demee dajeeg amru amru fulal ko alal ju ëpp bénéfice bu bari zaba gën koo bëgg gën koo yéem dem ba wóolu ko jox ko mang caabi magasin bi yëpp mu xam sekkereem lépp benn bis mu dem daje ko am defari seen kees dugal ci ay nit yor seeni i gërëm xen ci war a jëmale zaba nag di dox guddi di nëbbatu bëccëg ab guddi la ñëwal zaba zaba ba mu yégee gis gëlëm ya affaire bi jaaxal ko mu way fa wayoo ne ajan dalal yaxmil na am xadida waaw man kiram yi moom ay xeet lañ yenoom wala ay weñ affaire yi jaaxal ko mooy wayu neex daal hmm? ci lañ ñëw ba dugg ci moom eh, amru dem pour song ko rey ko zaba amoon na jaas eh, jaaru boo xam ne daf koo tooke mu macc jaaru ba daal di deew boppam ne bi yeddi laa bi yeddi amrin maa rey sama bopp waaye du am moom rey kooku mooy xasir noonu la fayeekulee ànd ak am lu fayeekul jose moom mu ne manit bu ma naree dee ma roy ci ñii rek ñii ñëpp teraanga lañ wut waaye dee dikkal na leen waxat sama yëkkati ko woon a xabli njëkk ma yasidu yasid taaliban di aji sàkku cheewal olaa la fa mu fa maa waxaa doye wut wala wanaata nànk wut yasid ibnul muhallab jullit ñi la woon Yasiid Muhallab bun Abi Sufra eh, yàlla dafa defoon mu nekkoon xawoon doy waar Omar ibn Abdul Aziz tëjoon ko ci jamono moo jiitoon Xuraasaan Omar folli ko tëj ko Suleymaan moo ko faroon Xuraasaan yàlla ubbee ci loxo moom Yasiid moom mu jiitu ko ay yoon Omar tëj ko boo Omar génne àddina Yasiid bun Abdul Malik daal di faru ci la daw fam dawee nag moom it ne dafa génn na ci nguur ak yësit jiituwul ko jàkkaarloog moom ñu dajee ay jote yu bëri yoo xam ni xeex naa ak ñoom gaa yi ba mujj na tëggaaye yàlla def moom it benn waaye bu ñuy wax kaxlu moo mujj rey hmm? la bëggoon mooy moom nguur gi tàbbi ci loxoom moom Yazid bun waaye benn waaye bu ñuy wax kaxlu bokk ci kalbu moo ko rey لقتلنا يزيد بن محلب بعدما تمنيتم أن يغلب الحق باطل وما كان في أهل العراق منافق عن الدين إلا من قدع قاتل رينا يزيد بن محلب قلنا بنا يا كان تياخر أم قدنا نطدق واه راق نافق بفموس قدنا رقوا قدع نيولا رأي موتا من فاعتر دات غلقنا دون التي ويسنا يقام راما ساكوانكم يزيد وقد جدت فك تتنا بيتمم الجد غور غور لكي غلق alluhay mu njuuna njuuma al oroba bi aji njàng luhay mu ak oroba dañ koy tuddee musiba jamono comme musiba gu xew rek corona nangam mën nañ ko tuddee luhay mu mën nañ ko tuddee oroba mu ne moom it waaju yoon yoo xaasu rek moo ko mm, dogaale daal di ko rey gannaaw ba nga xamee nekkoon na ku jàmbaar mm, dégg nga bëggoon nguur yëkkati yitteem kayoon lool mujj na dee rek mu ne su ma dee rek ma laal di roy ñii nga xam ne ñëpp dee nañ ci wut tawe in uriidu illal islaah mastata'tu wa ma tawfiiqi illaa billaah alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib wa salaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh